Kan- Nabi Vision. indépendance ñu koy doog a am ñu doog a am indépendance Ousmane Sonko ñëwee ndekete lii amul Sénégal yéen xaalis bari bi ngeen doon lekk fan lay jaar ci yéen dangeen ko ngeen diri indépendance am ci ti ti ti Ousmane Sonko kay

dëkk bi daal Sénégal moom fi mu nekkoon nga xam ko Sénégal nga doo ko nekk Sénégal yéen a bon kay nguur mag sàll ak nguur gi ko jiitu ñi fi nekkoon ñoo yées. ñu ngi Naby Vision ñu koy doog am président bi xam ne boo askan wi li ñëpp bokk ñëpp am ci. ñu lii xam ñoon am na Sénégal su ma ko jërëjëf ministre yi nag ñu ngi liggéey liggéey mucc ayib nañ ko wane nañ ko wax ndax ministre bi bi nga xam mo la jité di liggéey liggéey bo mu sa gis bu ko defee nan ko woné ku ko def ko wax la bëgg té nan koy wax 72 24 heures gi ñu def nan ko defal ñii di liggéey bu ko defal ku tekkiwul dara du ko wax du ko defal bon wax ñu bon du ko defal ku yees du ko defal ku tekkiwul dara dem ba tay nanu ko defal ñi nga xam dañ ni ñi ngi liggéey nak dëkk bi. Hmm, ma sax sonko jërëjëf de ministre mi nak ñi ngi liggéey liggéey mucc ayib. <laughs> salaam salam gars yi ñu ngi ziaré di di leen. di leen nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo bokk suñu diine bii di pas-pasu téefu pas-pasu téefu xam nga Sénégal ak li ñu ñor waaw li ñu ñor fii suñu suñu suñu suñu suñu diwaan fii nii waaw ñu ngi nuyu bu baax a baax di leen xamal rek ne euh, jëwrin Birame Souleye ak euh, euh, jëwrin Mbappé demoon nañ fee sa Sabadola feeñalal ñu or bi nga xamné depuis ay ati at at ñu ngi koy exploiter fi ci suñu rew té ñun ñu won gis ak ñu won xam nu muy dem ñom nak seen liggéey ñu ngi koy rafetlu xolé li ni tay euh li ni di jall ni nga xamné ma sha allah euh, diiné ge ngi dox waaw diiné ge gee ngi dox bu baaxa baax ñun nak nga xamné ñun ay taalibe leen bokk si ci si tarixa bi ni di di pas-pasu Senegal, xam nga ñu ngi xamal loolu di leen wax ne leen euh, gën leen di leen gëna soñu pour ñu gëna rafetal bi gën ko jëmmat jëmmal xam suñu sëriñ suñu wasila ah Cheikh Muhammadul Bachir al Muntaha Jomay Jaha wa wa ak ak ak Muhammadul Ousmane Sonko waaw di leen di di rafetal liggéey bi rek di leen wax ne yàlla yàlla defal jàmm defal ko suñu suñu suñu suñu sëriñ suñu wasila Mouhamadul Bachir defal ko Mouhamadul Ousmane waaw di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi ñu gën ñu ñu gën daal li xew si réew mi li nga xam ne ay ati at nit ñi ngi koy nëbb bëgg war duñ ñu ko won xam nga lo ay ay ay ay ay folklore xam nga ñu ngi lañu ñu ngi lañu ñaanal di leen wax ne képp ku leen yéene lu bon xam nga na ci sa kaw képp ko xam ne da nga jup pour wax leen lu bon yalla na ko wëlbati ko sa kaw ci jaay muhammadul euh, sallallahu alayhi wa sallam ah, ah, yalla ñu lay ñaan di la wax ne nga nga nga nga ñu muhammadul bashir ak muhammadul usman sonko defal ndànk sénégalais est-ce que gis ngañ Demba lii mu yor lii yéen xam ngeen ne ku leen waxoon lii ñu ngi koy expo ñu ngi koy defar ci réew mi di ka def ci ay conteneur di yóbbu bitim réew doo leen ko gëm. xoolal leen ko door bi Ngagne Demba Touré yor mais ñii ñii gouvernement bu bees bi jub jigi est ñii ay nit leen réellement est-ce que ay nit leen c'est tet man de barki alxuraanu karim kenn gënu maa joom bi xoolal ba Ngagne Ngagne Demba Touré lii mu yor. Naby comme le disait rek woykat bi nee na waxoon boy xol booy Afrique bul sori ñëwal ci africain né l'ennemi de l'Afrique c'est l'africain quoi waye boy xol ki gëna bañ Sénégal moy Macky Sall avec son régime bi passé fële ci diwanu Mako ca diwanu euh, Kédougou moy image bi ngeen gis noonu nga xamante ne depuis 1960 ba légui kenn mësul gis benn image ca diwaanu or ba foofu ci diwaanu Kédougou kenn mosu ko gis xanaa boobu ñu fay liggéeyee ñoo ko mas gis mais ñun Sénégal lamtaa bi mosuñu ko gis parce que dañu ko doon nëpp moom suñu moom moom suñu ressource ñun yi ñi bëgg a xam jël ko nëbbuñu ko waaye nag ci njiitalu ki nga xamante ni moo di dox son excellence Diomaye fay ak son PM ak ministre yi nga xamante toll nañ ci cinq ministre ñu mën cee nommé ki nga xamante ni moo di Bassirou euh, kii euh, Birame Souleye Diop ministre bi teg wàllu ak Ngagne Demba

lépp la ñu jaay tubaab ñun senegal yi amoon ci dara c'est grave waaye li day wane na rek ne jeunesse bi gàccee ngaa la am ak yéen walaaye bu ngeen xeexul woon bu ngeen wàccul woon ci tali ci tali bi ci mbedd mi xeex récupérer seen réew walaaye tey lii yëpp duñ ko am bépp bépp tooxi doona boo xamante ni gars ñu ngi doon def ñu ngi koy fayal bépp tooxi doona lépp ñu ngi ñu ngi lijjanti lépp ñu ngi jubbanti lépp di wax gàcci ngaa la am à son excellence Bassirou Diomaye Faye Naby Vision jamono mi ngi def liggéey bu am solo mi ngi def liggéey bu am solo lépp loo xam ne information woon boo xam ne sénégalais yi dañ ko waroon a xam te ñu nëbboon leen ko yëpp mu ngi fexe ba di ko won sénégalais yi li day wane na rek ne Sénégal mi ngi soog a am indépendance Sénégal mi ngi soog a moom boppam kon gàcci ngaalaama à la jeunesse sénégalaise da xeex bu récupéré li nga xamante ne nii moo di seen réew waaye tamit gàcci ngaalaama à Bassirou Diomaye Faye gars le président Diomaye Faye ak ñi mu àndal ak son PM Ousmane Sonko gàcci ngaalaamaa yéen 47 jours seulement 47 jours jour la lañu defagum ci bopp Sénégal mais jamono bii ñi ngi def liggéey bu am solo ci réew mi lépp lu ñu nëbboon Sénégalais yi lépp loo xam ne Sénégalais yi ñoo ko moomoon ñu jël ko jox ko tubaab bi ñu ngi koy nangu benn par benn di ko delloo ci Sénégalais yi moo tax wallaay képp ku bañ Sonko képp ku bañ Jomaay Fay booy wër noonu Sénégal ba yegg ci kooku jàppal. Naby Vision c'est ça la réalité en fait képp ko bañ ñi bëggoo Sénégal parce que ñi woote une société juste et équitable dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement yow nga ne nga nga jóg contre ñuy parce que jaamu tubaab yi nga jaamu Iblis nga jaamu France nga. moo tax képp ku bëgg Ousmane Sonko ak Macky Sall kooku booy xool ki gën a bëgg Sénégal jàppal kooku waaye képp ku bañ Sonko ak Diomaye képp ku leen bañ xamal ne booy wër noonu Sénégal jàppal kooku c'est ça la vérité donc gàcci ngaalaama yéen Sénégal moom na boppam donc di wax Sénégalais rek am peu de patience na ngeen leen may temps parce que jamono bii dañoo nekk jubal dañoo nekk jubbanti dëng-dëng yi fi nekkoon yëpp lañu nekk di ko jubbanti benn par benn

dina nekk parmi les pays les plus neex laa wax les plus neex du monde. ci Sénégal image bii de xam naa ne képp koo xamante ni doomu sénégalais nga nekk patriote bëgg sa réew image bii de bi nga xoolee de am sa yaram daw na. depuis ñun ñu juddoo ba léegi dañuy dégg or Sénégal or Sénégal musuñu xam oru Sénégal ba dëkk la jógee musuñu xam oru Sénégal naka la nan la mel. suñu juste dañuy dégg nii rek or Sénégal. ndeysaan Naby Vision. Macky jeex or bi dix pour cent. ca yàlla suñu borom ay yàlla Seydina Ousmane Sonko. lii kuñ ko wax doo ko gëm. te imaginer sax or bi dëkk bu mu jógee sax dëkk boobu sax amuñ sax courant. te normalement dëkk boobu moo war dëkk boobu moo gën a war a riis dëkk yëpp am lépp. posé à entreprise ay restaurant yu amul mais heureusement qui que vous amul sax courant des seen intérêt rek cay français Nous de seen intérêt nañ dem fa jël seen or bi jox ni Nous 10%. des la Sénégal dina bon. 50 la mënul nañ des non ah alors non Seydina Ousmane Sonko ak Diomaye mi yàlla nañ yàlla nañ fi yàgg te wër. même gis mandat sax bu ñu bëggee sax ñu jox leen ko. salaamaaleykum waa TikTok nuyu naa leen siyaar naa leen jaajëfal naa leen bu baax a baax di nuyu suñu jàmbaar faqatad yi ngañ Demba Touré ak Elmar kii nu Birame Souleye Diop di nuyu président demoon Kédougou ñu génneel ñu or bi ñu gis ko suñu bët bu ñu juddoo ak tey musuñu gis oru Sénégal duñ koy dégg. yéen a dem Kédougou génneel na ko nu gis nii xeeru or ndax yàlla jigéeni Sénégal mujj di takk or ñun dee ci përëm yu ma tafi baaba ci ku mer tampi ci kaw ci kanam yéen a ngi liggéey yéen a ngi def lu leen war di génnee rus sa Sénégal yi Sénégal di ci teg seen bët jeune Sénégal ndawi Sénégal góor góorlu leen ngeen liggéey liggéey leen président joma neena ngeen jóg ngeen liggéey te dañ leen génneel li seen réew moom la ngeen moom tekk seen loxo ngeen liggéey ko ay ndax yàlla jigéeni Sénégal mujj te takk oo lii nag ku mer tampi mais Naby Vision yéen ngi liggéey bravo